We run. ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وقضى زيد منها وترا زوجناكها وطن زوجناكها لكي لا يكون عليك حرج حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو على سفر فعدة أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن شهر رمضان الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليس به والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله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 أرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدًا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم تؤزهم أزا فلا تعلم بل عليهم إنما نعد لهم عدا صدق الله العظيم سيدنا ومولانا محمد ومن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yu tedd yi ñëw leen nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci jataay bu tedd bii nga xam ne ci lañu nekk muy jataayub alquran jataayub teral ñooñ alquran di ndokkeel ki yàlla jaarale mbir mi ci loxoom muy sëriñ Saalihu Buso ak mboolem mbokk yi mu àndal ci kuréel googu tudd jan Janna di ñaan borom bi subhanahu wa taala lii yàlla na bokk ci lii yombal sunu tabbi aljanna di ndokkeel ak di ziyaare ñi Serigne Sam yóbbaale na ma ci mboolem xeeti siyaar yi mu def a Cheikh Ahmadou Rafahi ibn a Cheikh Mouhamadou El Fadal bu ñu ko tuddee mu yóbbaale ñu des ñëpp rawatina mbokki sëriñ daara yi fi teew ak mbokki donga daara yi gis naa fi it inspecteur Ngom mu bokk ñi nga xam ne ñi ngi jógee IEF ñuy saytu njàng mi ci gox bii rek kon ñëw nga nuyu bu baax di nuyu ñëpp nag tomb bi ñu sant sàkku ci ñun ñu def ci waxtaan tomb la boo xam ne buñ ci doon def waxtaan benn bu ne ci ñoom doy na waxtaan ci waxtu yu bari buñ ne warteef wala taxawaay bi état war a taxaw ci daara waxtaani loolu doy na sëkk waxtaan ñaareel bi mooy kilifay diine yi kilifay diine yi seen taxawaay ci daara loolu doy na sëkk waxtaan way juri ndongo yi seen i doom di jàng ci daara yi seen taxawaay ci daara yi leen war seen diggante daara doy na sëkk waxtaan waaye bu ñu boolee loolu lépp nag ñu tudd askan wi nga xam ne dañ koy dégg ka sa doom nekk ak ka sa doom nekkul wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam di jiital ci nuyoo bi Cheikh Sidi El Muxtaar mi nga xam ne mooy doomi Serigne Abdul Xaadir te nekk ci jataay bi teew fi jataayu Serigne Sidi El Muxtaar xalifatul aam li tarixatil muridiya di ko sant bu baax a baax di ko gërëm ci rafetlu it jataay bi di jéggulu ci coono yi ak yàggaay nikinoonu niki noonu ngi nuyu njabootu Maam Moor Jaara gi ci jataay bi bu ñuy ci tuddee Sëriñ Xaadim Muxtaar dana yóbbaale mbooleem njabootu Maam Borom Saam gi ci jataay bi di seere bu baaxa a baax Cheikh Mamadou Bachir moom Sëriñ Njaaña bu ñu ko tuddee moom it dina yóbbaale mbooleem mbokki bu soobe ci jataay bi ak mbooleem sëriñu daara yi ci jataay bi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di nuyu it suñu mbokk muy le maire de la commune de Mbacké Abdou Mbacké Ndaw ñu ngi koy ziar bu baax a baax di rafetlu it jataayam di nuyu ba tey suñu mbokk di suñu xarit mën naa wax ne di suñu doomu baay muy le maire Talla Sylla di koo xamante ni bi kenn la ci kër Serigne Abdoul Wadoud ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di rafetlu it teewaayam mboog délégation bi mu àndal yëpp di yëkkati suñu kàddu ci turu Serigne Bara Bousso mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Abdoul Wadoud ak mbooleem jaboot sëriñ Abdoul Wadoud Bousso gépp di jël ay cant ak i ngërëm jëmale ko ci suñu rakk ji nga xam ne mooy Serigne Saalix te taxawal bés bu réy bii mu taxawal taxawal bés bu rafet bii mu taxawal di bés boo xamante ni bii képp kuy doomi daara wala képp ku baax ñor bégg nga ci rëy na ci yow bis la boo xamante ne bii ku fekki woon tey waaye juróom bu fa mu tëdd mooy Serigne Abdul Wadoud da nga xam ne am na ci mbégte moo xam ne mbégte mu kawe njort la waaye ku xam tam fi mu bokk di sëriñ Mor Rokhaya Bousso doonoon kenn ci sëriñ Touba bokk ci askanu Bousso bi danga xam ne sëriñ Saliou lii mu def rek moom la war a def ndokk yàlla nag bi nga xamante ne bii suñ borom xiir na ko ci fekk li nga xamante ne bii ci la ay waajuram nekkoon fekk la nga xamante ne bii ci la ay maamam nekkoon mu sol aw dàll jéem a tege ci yoon woowu ndam mbokk yi fi nekk yëpp maase xam ne. sama kàddu gii ma yëkkati mooy kàddu njaboot sëriñ Abdou Lahad Bousso gépp moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam mag la moo xam ndaw la di yëkkati ay cant ak i ngërëm di ko jëmale ci sëriñ Saaliwu ci jëf ju rëy yii mu jëf ci jëf ju rafet jii mu jëf ndax olof yi dañuy wax ne xel mu rafet kat puso bu réer la rek mag mën na koo for ndaw mën na koo for kon sëriñ Saaliwu bi mu foree lii Tadi diko doxal diko ci anam gi mu koy doxale na nga yëg ne say bokk yep an nañ ci ak yow say bokk yep bëgg nañu ci te ñing lay ñaanal ci barki Seexul khadim dila ñaanal ci barki Serigne bu soobe sa mam dila ñaanal ci barki Serigne Mor Jaara ci daraje Serigne Mor roxey mi nga xamne ne na ngërëmul Serigne Touba suñ borom sam la suñ borom ar la ba daralu yaq baña dal ci sa kaw ci barki Seexul khadim suñ xol set na ci yow bu baax ndax li kenn nga def kenn ku nek ci ñun ci njabot gi waroon nañu kenn ku nekk ci njaboot gi xëy na am na yéen ja waaye ci yow mii la ko yàlla dogal muy dogal bu rafet di dogal bu ñu neex boo xam ne ñun say bokk yëpp ànd nañ ca yow ñi ngi sàkku ci yéen ñi nga xamante ni bii yéen a fi nekk muy Serigne Sidi yow mi fi nekk te toog jataayu Seexul Xadiim Serigne Xaadim Moxtaar yow sëtub Serigne moor Jaara nga Serigne Basiiru di sëtub bu Busoobe ñi ngi sàkku ci yéen ngeen ñaanal ko moom Serigne Saliou mii fa mu jëm yàlla na fa àgg tabot bu ko dara dog bu ko dara gàllankoor ndax jëf ji mu jëf kat jëf la jo xamanteni bi du jëfi goné ndax bari na mag mo xamanteni bi baxna baax lool bëgg na lu bax lool waye musta ag fi kon nak bi yalla dogalé mom mu jëf-jëf ji na bokk yépp xamné serigne saliw bokk yi sant nañu la gërëm nañu la ñi ñaan suñu borom taxawu la te la ba sam la ba yéene jo bëgga def nga àggale ko nang ko bëggé ndax xam nañu né adina ku ci dooru duggu bari nga ay bëgg-bëgg te am nga say morom yo xamanteni bi suñu mënon a dara dañ koy défé kër wala ñu défé ju wutee ju ko auto wala ñu défé ji ko nenen yow nak bi la yalla xiré ci nga mëna lijeenti lenn jël la nga doon lijjanti war ko ci alcorane xam nga fi nga bokk xam nga li nga doon yoon wi nga tege nak nang ci gor gorlu boo bo ci tégué bo ci gorlo ta téggi wo sa tank fa nga bëgg ag da nga fa ag inshallah ta dara du la dok inshallah moy kaddu yi nga xamanteni bi jëlé Serigne Bara jëlé ko ci njabot gi ngir ñu jottali ko sant leen gërëm leen bu baaxa baax di sant it ba tey ci turu sëriñ Baara Talla Sylla ñu ngi lay sant bu baax a baax ndax xam nañu ne sëriñ Saaliwu ku yàgg ànd ak yow la koo yàgg jëf jëflanteel nga te yaakaar naa bëri na loo xamante ni bii tey bu fa àggee say say jàpp bokk na ca say xalaat bokk na ca say yéene bokk na ca loola nag njaboot gi yëpp yëg nañu ko ñu ngi la koy doolee dénk nga dolli koo jàpp te dolli koo jàppale ndax xam nañu ne xoole woo ko bëtu xarit rek xoole woo ko bëtu ku ànd ak yow doon politique rek waaye da nga koo xoolee bëtëb koo bokkal ndey ak baay bët boobu nga ko xool nag ñu ngi lay ñaan suñu borom nga jàppale ñu ko ba yéene ji nga am ci moom nga mën koo àggale moom it yéene ji mu am ci yow man koo àggale ci barki Seexul Xadiim di wax ci turu sëriñ Saliou rek li ma ciy wax rek mooy du passé comme lii ma waxoon rek mooy kàddu yi sant la ak ngërëm ndax moom Serigne Saliou nee na li ko ñor mooy. fi nga xamanteni bi fa la mamam yu bax yo ya tegon tankam liko ñor moy xam na ne ndaw munta ñak yeungu te bu yeungu mu ci mu yeungu ci lo xamanteni bi lu suñ borom gëreem lay doon yeungu ci lo xamanteni bi lu seexul khadim mi mu yaakar gëreem lay doon yeungu ci lo xamanteni bi sa yu wajurum del ci won fekk ko jamono wala mamam yu baax yooyu del si fekk ko jamono bu teggi tankam na loolu tax muy tambali li muy tambali neena na mu tambali nak ab tambali kep la du adonul asakaay li mu yene bëggoon na incha allahu taala bu ko yàlla mayee li mu bëgg daara ju nekk Mbakke dana fa jëf loo xamante ni bii Mbakke gépp danañ xam ne moom Serigne Saliou moo fi jëf lii te bu koy jëf tam defu ko ngir puukarewu defu ko ngir wane waaye da koo def ngir xam ne lu mu am suñu borom moo ko ko jox lu mu am Serigne Touba moo ko ko jox tey defalul defalul yàlla lu gën defal ko ci def ko ci daara yi defalul Serigne Touba tam lu gën def ko ci daara yi. moo tax mu dajale fii tey fanweeri daara yoo xamante ne bii composé na 1000 élèves yoo xamante ne bii ay ay ay dongay daara la ñu bés bii di bis boo xamante ne bii bés bii di tey di journée nationale des talibés mu mu daje ak moom mu xam ne bés boobu kat. nga xam ne moom lañ jagleel donga yi amu ci lu gën a yell amu ci lu gën a jaadu dajale doomi daara yi dajale dongo yi daara yi sargal leen jox leen ay neexal encouragé leen ba ñu xam ne lii ñu nekk kat mooy yoon wi nga xamante ni bii ci lañu war a nekk loolu moo sabab mu ñëw dajale dongo yi daara yi tey jii di leen njukk delloo njukkal di delloo it ñennet ci ñi nga xamante ni bii dañoo seen dund gépp dañ koo jox alxuraan ba jeex tàkk bokk na ci sëriñ Balla Jatara ak sëriñ Sidi Bousso moom sëñ Mawlaay sëriñ Saliou li mu def ci daara xam naa ne bëggul sax ñëpp xam ne mi ngi def lii ndax lii mooy li nga xamante ne bii la mbooloo mi di gis waaye mën nañ koo seere te lii ñuy seere tam yàlla képp moo ñu di ko seere zahidna illa bi ma alim naa am na ci dëkk bi ay daara yoo xamante ne bii ya nga xamante ne bii la donga yee jàngee sëriñ Saliou fa def te kenn xamul ne Serigne Saliou moo fi def lii loolu itam bokk na ci jëf joo xamante ne bii yàlla rek moo tax nga di ko def di jëf loo xamante ne bii yow mi koy jëf boo noppee tourné nga paas boobu kooku koo xamante ni bii ka ko jëfal wax kooko du ko dégg loolu mooy jëf ji nga xamante ne bii jëf ju mat la jëf joo xamante ni bii jëf lu jëf juñ taamu la kon Serigne Saliou ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm te di la ñaanal ci barkeb Serigne Touba di la ñaanal ci barke sëñ Mor Roxaya bu sa samaam suñ borom sàmm la aar la ba yéene ji nga am ci lislaam am ko ci yoonu murit am ko ci njàngam alquran mii suñ borom defal la ko na nga ko bëggee ndax ñun leer nañu ne lu say at gën a yokk sa kattan di gën a yokku dongo daara yi di gën a bëgg sëriñu daara yi di gën a bëgg loolu moom am nañ ci lu ñu leer luñ mën a teg suñ bët la te lii ñuy wax tam yàlla képp lañ koy seeral ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di jaay jëfal mboolem bokk yi fi teew ndax képp ku fi ku nekk da ngaa dagg say ay yitte kenn ku ne xam ne temps yombul te jafe na lool yéen ñëpp ngeen maase dagg seen yitte ñëw teew fii rawatina suñu kilifa yi nga xamante ni bii xam nañu ne waxtu wi xam na ak waxtu timis yëpp teewul ngeen bàyyi lépp dañu waaye nag loolu li li ñuy li leeral rek mooy xam nañ ne diine moo leen ñor xam nañ ne alquran moo leen ñor moo tax ngeen mën a dagg seen lépp ñëw fii ñu ngi leen ci sant bu baax a baax di leen gërëm yéen kilifa yi di ñaan suñu borom sàmm leen suñu borom aar leen yéen ji nga xamante ni bii moom ngeen am ci Serigne Touba ak yéen ji Serigne Touba am ci yéen yëpp yàlla ko suñu borom mottali képp ku fi teew dal na nga yëg ne ci touru Serigne Saliou sant nañ la bu baax baax gërëm nañ la di sant yit kilifa yi nga xamanteni bi bii ñoo doon saytu li ba yëf yi aksi fi moy ñi nga xamanteni bi bii ñoo doon taxawu ci jongante bi alxuraan bi bokku na ci Serigne Massamba busso bokku na ci Serigne Abibou jatra ak Serigne Mamor mbake Serigne Ahmadou Lay ak euh, Serigne Mor Ñang ak ak euh, gorgu Serigne Sam moom gis naa ne bi ñu toogee ba léegi mi ngi reer rek ndax xam naa saako ceeb yi mu jàkkaarlool moo tax ak Serigne Lamine Ndiaye ñooñu ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax baax di leen gërëm ndax Serigne Saliou képp mënut da moom bu dee moom dong mënut dara bu fekkente ni bii taxawal na lu mel nii ñu dem ba fii yi agsi fii mel nii mu mel kenn ku ne xam na ne loxo yi waaye gaa yu baax dugg na ci seen loxo yooyu itam ci dugg ngir ngir diine ngir lislaam rek ñu ngi leen di ñaanal suñu borom sàmm leen yéen itam suñu borom te eh, sàmm seen xam ba yéen ji ngeen am ci lislaam ngeen mën koo mot li ko bëggee ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu ci kàddu yi nga xamante ni moom la doon yëkkati ci suñu kanam kilifa yi waaye dem di jégalu ci lépp loo xamante ne bi dëng na ci ndax man xam naa ne kilifa yi ma yónni woon li ñu ma yónni mat na Serigne Saliou tam li nekk ci xolam lépp mënu koo génne ci làmmiñam moom it li ma yónni woon man na lépp loo xamante ne bi dëng na ci ci man nii ñu ko jox la ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan nii ñu fi teewee ren yàlla nañ fi teewaat yeneen at yu bëree bëree bëree bëri te lépp loo xamante ne bi aw yiw la wala tuyaaba woo xamante ne bi alquran mën na koo jox doomu aadama yàlla ñu borom defal te dafa defal lu kawe suñu njortu ñi ngi sant bu baax a baax tam presse bi ndax euh, bu fekkente ne bii maanaam nit mën naa nekk ci Amérique tey wala mu nekk ci Europe wala fu mën a doon di jot ci lii tey taskati xibaar yi ñoo tax ba lii mën a am ñoo ñooñu itam ci turu Serigne Saliou ñi ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ndax lépp lu mu mas a nekk yéen ak moom a ko ànd ba tey jii yéen ak moom a ànd jataay bi kon sant nañ leen bu baax a baax gërëm nañu leen di sant tam xaritam boo xamante ni bii ku ko yàgg jàppale la muy Abdou Karim Fall di doomi Mbàkke moom itam ñu ngi koy sant bu baax baax di ko gërëm gis nañ délégation ñu ngi leen di ñaanal suñu borom sàmm leen ñu ngi ñaan suñu borom aar leen ko taxawu leen yàlla nañ ko teewaat at yu bëree bëree bëri ci barke Seexul Xadim barke Sëriñ Bousso bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu